wëyal di topp suñuy vidéo fii ci Khelcom production abonné wul te bés cloche de notification bi ngir mën a jot bépp vidéo fépp foo mën di nekk ci àdduna bi jox leen ma nopp yi ma dellu seete doyalaat xoli murid yi sotti jox leen ma noppi ma dellu tooyal xoli jullit yi sotti kooti amaana ngay gis kuy nelaw bay gént tamana yee nit ba mu yeewuy sant daay sulli ay jaloore yooyu sax suuluwul ngir darajaay nebi ba tey ñu ngi koy biral kii may misaal daa xew te dootul xewi ngir diina jéeg murit kii moo ko taawi kii may misaal daa xew te dootul xewi ngir diine jeeg murit gi moo ko taawee saalika fadlullahi laa koy tàmbale yuuti man yasaawu sëñ falloo ngi le saalika fadlullahi laa koy tàmbale yuuti man yasaawu sëñ falloo ngi le laylatu israa yàlla def lu ne calagane addina lii tax du gone moo dàq xiif dàq fi ragg ak ràmm génn fi raf la may ne réew jàmm al yawma akmaltu ji yàlla wax rasul sëñ bamba mi ñëw nag di xaadimu rasul moo def sëriñ fallu matal simba mi ma wax la sëñ bamba lu doon simba mi moo def sëriñ fallu matal simba ma wax la sëñ bamba lu doon simba mi ñaar la bëggoon mu doon yàlla ak bi xanaa la koy ñetteel de mooy dëkkam bii desul boroom gannaaw deful lu ñuy gees waxam la wàcc fii fi nun nu koy gis bëggug sëriñ bi moo di tuubaak alxuraan siñ lii la def ci tuubaak alxuraan ñaar fukki kaamil ak juróom ñett yu la bind muy uruufi tuubaa ak amat la gën a yéeme moo di xëdu nekk it ñaar fukki bind ak juróom ñett layit ku weddi lii ma wax demal ba wàññi ko man maa ngi lay xaar ba nga dem ba wàññi ba xam da nga fages lu téeg lii ma wax duunu kuy jàppatu kuy foroote wax mas naa bindal sëriñ bi kaamil yut ko sëñ bamba jël kaamil ba rekk ubbi ko yam ci baran bi waalidihi mooñ ne ko laggal ciy fëllu pepp mooy mooñ kaamil ba mu jëkk a bindal sëriñ bi sëñ bi da koo sant gërëm ko wax ko ne ko na bindal sunu boroom ngir sant naa mu sant mokk yonent bi kat sëñ Fallu dal ne ko deman sunu boroom balaa ma koo bindal mu fay ma ku waam kaamil bi daa koy jaay suba génn jënd bu njëg gi aw araf duma dind sëñ bi ne ko ndigal ma ko ba xam ab diir bu néew mu ne ko nee luy njëgëm sëñ Fallu dal ne ko njëgëm mooy ku la gëm yomal xiyam bu mu fa dajeek lu dul ngërëm bu kenn luñ ñu tub bu kenn lañ bat mbiram ko ma nee ma tàmbalil ko tay mënul ñaaral ma nag damay xëy bu bi sëggaat ne ko nigal ma laajaat ba xam dana la may xadaa ulaajaat may na la tey murit bu war ci ak jaat tàggoo ki coono waaye nag mu laajaat loolaa waral sëñ Fallu mas naa tukki doon sàkku pepp ci wàllu kokki ci mag mu làqoon ngërëmal sëñ Tuubaa ba foog ne moo sës rëkk nag ca xut bu ba mooma ni ko sam pepp daa koy lekk duma ko jox ko ne mu di ko sànk sëñ Fallu daal ne baax na kon bopp booba ma jaaxle lool ngir xawma luy bopp booba sëñ bi ne boo bay fallu mooy yemal xiyaam yaa ngi woyof new fepp nag muy xorondoom aw fepp nag du yóbbu boppam ci mpax aw xorondoom lay neex mu daal di koy sex yaa ngoogu mbir yaa ngoogu fëlloo ngoogu yomal xiyaam du sore ay toogu dellul seral xolam balaa muy dellu ku bëgg jàll fëllu moo dib jàllu dellul seral xolam balaa muy dellu ku bëgg jàll fëllu moo dim jàllu mag moo ma dem jox ko juróomi bërigo yokk ca ñaar calam waxoon bégale ko ciy boo yemoon ci yati ma la waxaan yomal xiyam nu fuddu sang noon waaye dangaa dem nag ci mag mu yeela man fëllu mii kat lii ma yor ak njëg la baal naa la may naa la ëllëg nga yaram mu li des ci sëg dund nga sax ci jàmm mag mooma nee na lim dundaat si buruwul waxuma tooy lii tax ram moom mii xaaral ma wax la luy xëyum sëñ Fallu bagaañe dee xëy dëjëlu man dellu saa julli fajar wir das wutkatu dépense yëpp ñëw def kom ndiir jant fenkee nag mu tàmbalee joxe pam naaj mu ubbi seex si tàmbalee joxe ñii seeni addiya ñi leen di ñaanloo muy joxe xéewal yi ñi lay barkeelu bu àjjuma bu julliwaan jàll këram maam yàlla na nga yàgg sarax nuy dërëm mu toog ci biir baraak ba nag naa leen daam ñu naa ko yaa bari njariñ te daam mu toog ci biir baraak ba nag naa leen daam ñu naa ko yaa bari njariñ tayay daam amoon naam ponkal mu tudd boy naar xam naa ni fi mu nekk ko gis muy bay naar ku ma safar lu bari nag joxoo ko day bikk sab loxo mu rot mu far ko xam nga li tax gone yii nag di ko giñee barkeb sëriñ fëllul la ñépp di añe xam nga li tax gone yi nag di ko giñee barkeb sëriñ fëllul la ñépp di añe gone gu juddu am naa toqantal sopp sëriñ fallu ci leen leen nampal sëñ fallu mbàkke fi ne mooy kafee mburu koo gis mu xëy ndëkki ci daa mburu dongo yi yëpp moom la ñuy yalwaane géwél yi yëpp moom la ñuy woyaane sëfoor si moom la ñuy cuqe oto yi mool yi di ko embarqué seen bato yi limat matal na ko te mooy jumaa ji tàmbali lii dul man du maa som gaañi dàq na geer beeg raf di xéewal ñaanal murid yi fa sëriñ ba njëggal falloo di muslukaay te moo di muslukaay loo ca jëmbat mu sax te loo mu saay falloo di muslukaay te di muslukaay loo ca jëmbat mu sax te loo jàmbat mu saay ma wax la xéewal yi amoon ci jamonoom laajal ñi xam ñi fekke woon dund ak moom sump si deewunu ko jaay ci jamonoom diim sax deewunu ko jaay ci jamonoom sexaw mi deewunu ko jaay ci jamonoom lay duur du ko jaay ci jamonoom neew sax deewunu ko jaay ci jamonoom soccit deewunu ko jaay ci jamonoom meññan mi li ci ëpp dañ ko daa maye tey jile meññan mépp nag dañ koo téye yow soo masaana bëgg buy dem tàkke tey ko falaal aw ko cudañ lay tàgge amoon naay daqaar yu ne kundig daqaar tey ko falaal aw dott mo seeri daqaar amoon naay alam yu ne kon boo dañ tey ko calaal borom musalla ay dañ saaboo ma saa jënd kafeet ñu may la jar tey jili tiimir bu tegal la jar di jar tiim ak seexaw new darka lay dóor yow soo ko laalee ci pañe danañ la dóor bëgguma woon a tudd ak wilaayaam bëgguma woon a tudd ay xarbaaxam bëgguma woon tudd ak wilaayaam bëgguma woon tudd ay xarbaaxam wante na xarbaax yu jëriñ mbindéef yi mënees na koo siiwal mu dàggi xol yi bàyyi mu du fal xon mu borom pësiif ba laa bëgg a wax ngir xam ne moo gëm sëñ ba bàyyi Cerno Faal doomam ma ngi di dégg alaaji fal mbulaanse mi may dégg bu ma sosee nañu ma wax du dëgg nañ ub sama gémmiñ mu bañ a yegg baay cerno daa daanu ci kaw sooroor bi bañu ne faatu na ni ngeen ko fab robi baay muudu faal yenu ko yut sëñ fëllu cernoo ngi xulli ay bëtam ne xollu mu ñaan di ñaan di ñaan ba cerno xiqi mu ne ko tey safan wi daa koy feq matuk jumaa ji danga ko fekke mag yow dang ne pëlëg wér ceerno dang nekke caw bay muudu faal ne ko bu faatu woon tey rakkam de lay indi mu wuutu tey tey ndax yaa ma moom sëñ fallu lu ma fi jur yow bu la neexoon tey nga jaay nu faya bar maax la sëñ Ousmane bu soog tawam nga xam ni sëñ fallu jubog borom maax la sëñ Ousmane bu soog tawam nga xam ni sëñ Fallu jub ak borom mbooloo jikkoon ci wàllu réew mii mépp ku nekk am ndaw ci tariixa yépp ñu ñëw ci sëñ Fallu di ñaan lu ab taw mu ne na dellu bala timis mu taw ñu toog ba siisir asamaan si wuriwul ba seexu Usmaan jàq nag te jaaxle lool juboo na maag yàlla jubóog Mikaayil taw bi da ngeen ci xuus da ngeen seeni yàlla sëñ Fallu dal ne lii ma wax Ousmane du xaaf booy tàbbi tey sa kër dañ lay góof ba mu ñibbee këram keroog des ko yanu ca kaw billaay keroog daa jooy balaaf nee bala maa fa kenn saaw yaram féex mbay ci saw tànk wala fi yaa